bu baaxee rek jëlal jëlal. gis nga mbokk yi ñu ngi noonu toll ci final poids lourd yi fii fii ci ndeysaan li nga xamante ni mooy Fatick drapeau monsieur le ministre des sports Matar Ba jam production moo ñu fi woo mise bi 3 millions la compétition yi ndaanaan yu bari daanu nañ waaye ñaari xale yi ñoo dem final dox ci diggante Toubacouta ak ki nga xamante ni mooy.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 arbitre bi sifflé na maa la ko wax Mbacke. le 16 dimanche mai 2021 ici stade Fatick Jam Production drapeau Matar Ba ministre des sports arbitre bi sifflé na diggante ku ne ngemb ngemb ñuul nga ngemboo. ndeysaan daw nañ jàppante ñoom ñaar. Franc ndeysaan Franc ak Toubacouta Toubacouta da ko bëgg a dóor maytul plaqué bi forum la ndeysaan maytul plaqué bi Franc ku nekk yaa ngi jàpp sa loxo morom arbitre gis Franc mooñ fere suñu ndeyjoor Toubacouta suñu càmmoñ ñoom ñaar ndeysaan kii tànk ndijoor la jiital kii jiital tànk càmmoñ fàqan na ko dugg na da koo bëgg a suruxal. jël na. jël na Ndeysaan. Jam Production moo ñu woo. mise 3 millions. de bi daal di koy duppee Matar Ba. moom mi nga moo langoo ndombal tànk. tàggat yaram fii ci Sénégal. mu bëgg lam jeex. lim def tey waroon na ko arbitre dàqal na leen. nee na avertissement. avertissement pour Franc. arbitre bi sifflé waat na. Toubacouta ak Franc arbitre bi sifflé waat na. ñu ngay bëre ba léegi. laa ilaaha illallah doole doxul. daan na ko ndeysaan. Franc jël na compétition bi daan na Toubacouta. laa ilaaha illallah ndeysaan.